waaw sama kaaraange nag euh, wax dëgg yàlla du état du Sénégal moo koy moo ko moo ma moo ma koy kiiyal donc kodaas man ak sama ñi ma àndal ñoo koy gérer sécurité bi kodaas loolu bokk na ci moyens yi. pour que ma mën a ñëw def mission bi au nom du CODAS pour la nation sénégalaise pour la république pour Adji Raby Sarr te ñu mu mun a nekk ci anam yi gën a. Euh, safe maanaam mu bañ am benn sikk benn luy yàqu wala kenn kuy gaañu parce que contexte bi dafa dem ba Sénégalais sax ci boppam euh, dañuy ragal a wax seen opinion ndax bañ ñu euh, menacer leen de bañ ñu attaquer leen wala bañ ñu ñëw taal seen kër man menacé nañ ma ba tàyyi menacé nañ ma ba tàyyi donc c'est normal que bu may ñëw waa CODAS mettre sécurité bi au maximum mu nekk une des priorités. yi nga xam ne moom la ñu njëkk a avant que may déplacé wu mais du état moo ñu ko jox ñun c'est avec nos propres moyens